mais Birama ah. affaire météo damay dégg politicien bu ñuy waxee naan da ngeen def météo def météo amul benn presse bu sérieux ci àdduna bu dul def météo journaliste boo mënul prévoir liy ñëw lu la nit ñi di doye. bu fekkee ne nit ñi li ñu xam yëpp xam nga. li nga xam xamoo ci yam. maanaam dañuy ñëw ba yëf ñi rëcc ñu soo ko xam. sa dëgg-dëgg mais man de tant que maa ngi def journaliste. dinaa def météo. képp ku négocier ci suuf dinaa ko wax dinaa ko bind. Mm-hmm. dégg nga non non c'est important météo mais météo c'est la noblesse du métier. parce que Idrissa Seck non dafa naa dafa naa dafa naa dafa naa muy seen li ñuy def Idrissa Seck tey bu xëyee suba ni tell ci kaw nit ñi ci Macky Sall te nit ñi waxuñu ko mais loolu déception bi day gën a rëy. il faut ñuy gis nga politiciens yi li ñuy def il faut ñu xam ne mënuñu naan yuuru nit ñi réew mii mënuñu fee def lu journaliste yi xamul. c'est important kenn jéem a fee naan yuuru kenn non dafa naan rek wax la. non non non parce que donc météo xam nga da ngay dégg politicien chaque jour ñu da ngay def météo. mais yow mën nga ma xam nga lan moo xam nga défendre li nga gëm rek yow li ngay def nii sa journaliste moom nga gëm. ok Badara ñu gëm la ñuy def. ok Badara ah. waroo wax yow. mais de ah. ah, dafa naan dara li ñuy wax ni suñu métier la c'est important. yow Pape Diouf waroo wax ay defuma météo bul waxati loolu parce que les politiciens dañ lay complexel bu ko nangu non dafa nangu dafa bu nangu loolu la question parce que je t'explique je t'explique dafa nangu mu wax la politiciens yi li ñu bëgg mooy complexel la ba nga xam ni les journalistes vont se dire non non ñun on va se remettre kii c'est pas un te déggoo li ma bëgg a wax. voilà li ma bëgg a wax mooy. <laughs> réew mi dañ ko war a monitorer fu mu toll. mooy dëgg. lu xew ci réew mi dañ ko war a dox mbóot xam ko. et dañ ko war a wax dañ ko war a bind. parce que suñu deful loolu jariñu dara darañu dara ci réew et puis je vais t'expliquer xam nga lan moo tax monitoring baax am na yu bari man dama dund sama métier yo xam dama ko dund am na yoo xam dama koy cof bind ko mu taxaw te loolu journaliste yu bari dund nañ ko c'est important mm. il faut ñuy veiller ba pare démocratie transparence la mm. démocratie transparence la gis nga àdduna bii fi mu toll nii waruñu accepter ñun dans notre pays mais États-Unis mais bon, mais quand tu couvres les sommets internationaux moi G8 n'importe quoi Vous sama ba pause le président des États-Unis il recevoir la presse américaine pour briefer le La obligation ngay def dans le plus grand secret dans le plus grand mystère L'ordre démocratique, c'est pas normal ma question de tout par exemple day am sommet international ñuy wax ci enjeu comme le pétrole etc. cetera doo gis une autorité vous y débriefer un journaliste sénégalais. mais c'est très grave. C'est pas normal. comme nous nous ñun nañ nous ba xam li am li xam ni ko hmm. mais la presse va cesser d'exister comme pouvoir dans ce pays et c'est dangereux.